مقدمات الجنة التي وعد المتقون أحمد مخليا تعالى خمسنا waaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi topp seen télévision Mawahibou TV ñu ngi leen di nuyu lu bari te di leen ziara xam naa tey ñu ngi fii ci euh, daara Serigne Habib Mbacké Eh, imam eh, ñu fi dundal alquran ci jàngo ak diko ko jàngale eh, tey jii nag ñu ngi ci jàkka ji fekk ci serigne basirou Mbàkke nga xam ne sëñ la ci jëm ju baax jooju ci fulku bi nga xamante ne mi ngi ko fay amal ngoon gu nek bu defé dañuy nuyu ak mom daal ñuy wax fulku bi kañ la tàmbali ak lan mooy cosaan fulku serigne basirou assalamu alaykum ya wa rahmatullah ñu nuyu ziar tay mag tay baal ak leen ko baal di leen bokkal ci weeru tetu mag di masa ucon ingin nyu ingin yak siap ya yëpp yàlla na def doon xéwal ci jam ingin ngeen laaj moom danañ sawar ci laaj ko ndax ñu bëgg-bëgg la te suñuy yéene fa seen yéene ko liggéey ci waa ragal na ni diru buñ ko téré tambalé tey yaakaar na ci 2014 lay tollu ci sama tak tak bu gatt na ne wér na moom juróom-benn juróom-benn at yi moom wér na léegi nag liñ ci dabu moy bëggub sëñ bi rek fa seen mom suñ mom fonkon wëru koor bi la dan ko dundal dundal bu yëmut non nak lolou loolu lañ fas yéene di ko dabu di ci ñaan yàlla daje ca ngërëmam rek waaw waaw xam naa tamit ren jii moom ragal naa ne jotaay yu bare bari ci l'islam yi na jotaay mouride yi nga xam dañ ko baxo dundal diko di ci ci dàkk bëggub bi amul na coppiku ba tax na ren ji ni ngeen ko fekke ni nga xam ne yaakaar naa bu weesoo ñuy jàng yenn ci ñi jël yéen ñi jël image yi bu weesoo lolu yaakaar na ñeneen ñu fa def da ko waral nak moy xew-xew jëmono bi nga xamne ñoo ñaan yalla mu tegg ko ci barke ci be yu bali bepp bépp musiba bo xamne ndale ndaale war na rek diko ñaan ci daraje rasulullah sallallahu taala alayhi barke weru ko wi barke xasida yi ba dañ ju ne rek lañ yene ci ana ana booba kawe lañ weso waaye ren jii moom dañ naan wax ne ren bu naree naqar yàlla daax yàlla mel ne daax waaye ren jii moom yaakaar na bu naree mel yàlla daaw yàlla mel ne daawaati jël fulku bi ragal naa ne dinañ ci nekk maag sëñ bi suñu Moussa Xuma baax ki moo ñu ciy jàppale waaw naka ne ak ku ci mën a jàpp rek waaye suñu Moussa Xuma daal yaakaar naa moo ci nekkale waaw waaw waaw noonu niñ ko baaxee dundale ci keneen kii nga xam ne mu gën a siiwee ci euh, kii njaarim bi nga xam ne waa njaarim daanaka ne dañoo topp cosaanu sëriñ bi léegi ba léegi ñu bari roy roy nañ leen ci ba tax na euh, sàkk gi ñu sàkk loolu tax na ñu fas yéene koo amale fii euh, moo tax moo waral jotaay bi liñ jàng nag bu dee téere bi yi la ñuy jàng ak ni ak yeneen xasida yi ko nuru ba dee téereb fulku nag moom tàmbalee guñ ko waaye jëmmi jotaay bu fulk lañ koy woowee ndax ba lu lu aju ci koor gi jotaay bi yëpp daanaka ne bu weesoo ba dàkk bëggub sëñ bi turu fulku lañ koy woowee. waaw xanaa di dollee santaat bu baax waa Mawahibou di ñaan yàlla seen taxawaay gën a yokk euh, ba lépp lu nga xam ne yéene ngeen ko ci lu baax suñu borom jàppandal ko xam ne jumtukaay yi yëpp ñëpp ko war am ndax. Euh, ni nga xamee noonu la yeneen safaankat safaankat yi di di def leneen ci lu kon ay baax yi war war nañoo wut jumtukaay yoo xam ne noonu la ñuy siiwale ci luy baax nga xam ne lees ci waaye am rek doyut na léegi waaye nañ lu ci ne nañ ko def nañ ko war a defee rek bu ko defee danay jàppandi lool ñeen yàlla suñu borom taxaw leen sàmm leen werkib suñ tubaab. jërëjëf kon ñu ngi lay sant di sant ñi nga xamante ne ñoom lañ àndaloon ci liggéey bi ñoom la sëñ Abdoulaye Jigé ak mboolem ñi nga xam ne bàyyi na ngeen fa ñëpp المطارمير جندك وآله وصحبه وتجعل جميع خدمتي رجا تنجلي يا ربنا صل صلاة سبحان ربي الكريم الأكرم من غادني إليه بتكرمي سقت العالم لما شفاري ولم يجل برافي سفوري رفعني الرافع بالكتاب بلا حساب وبلا